Salif Sow maa ngi lay nuyu. di la fay Seydou Nourou Ba. ab communiqué wadd na sëriñu kii di Ousmane Sonko dal ne euh, moom mi jiite Pastef nangul na ko dem wuyu ji. ngir daru réew mi ngir jàmm réew mi moo tax ba usmaan Sonko nangu dem wuyu ji ginnaaw ba ko ko sëriñam sàkkoo ca moom ak it cër bi nga xamante ni jox na ko sëriñam bile moom Ousmane Sonko looloo waral ba sëriñ Abdou Mbacke xalif euh, njabootu sëriñ Cheikh Khady Mbacke daal di jaajëfal bu baax euh, Ousmane Sonko daal di jaajëfal képp koo xamante ni dugal na loxoom ci coow li muy kilifa société civile bile moom sëriñ bi tamit euh, teg ci moom mi nga xamante ni mooy sëriñu ki jiite Pastef les patriotes tamit euh, daal di jaajëfal taalibeem bi ni lee bu baax a baax di Ousmane Sonko nga xamante ni ñu ngi koy tudd ci wàllum yàkkataan Adji Sarr moom moo ko ko jiin xale bu jigéen bi at la am moom day tamit jaajëfal na Ousmane Sonko ci bëgg bu mu bëgg réewam te dellu ci ginnaaw euh, benn yoon moom sëriñ Ousmane Sonko bi ba tey mu ñaan jàmm sax ci Sénégal dalit am ci réew mi ba sunu Sénégal gi weesu jamono yi nga xamante ni ay ayu bés mu ne ndax euh, coowal lii lee moom Ousmane Sonko ñu fàttali ne suba war naa wuyu ji juge d'instruction bu huitième cabinet di Mamadou Seck Ousmane Sonko waxoon ne du ko wuyu ji benn yoon ba nii nag demut wuyu ji benn woote boo xamante ni woo dañ ko ko ca yoon ak ca assemblée nationale di pencum ndaw réew ma mm. waaye bi yoon sëriñam xamoon nañu ne Ousmane Sonko dina wuyu ji suba incha allah